tey su ñu demee ñoom ba nekk ci jafe-jafe yii c'est parce que dañu leen bàyyiwul xel wala boog alal dañu yoroon ñoom ñu salfaañe ko waaye nag dafa am solo démb lu xewaan dañ daan wax dafa am lu tax tey jii la mbëkk mi gën a takkarnaase tey jii la nit ñi gën a sonn tey jii la nit ñi gën a jaaxle moonte de am na ñu fëggoon seen dënd ne mën nañu régler problème mu réew mi waaye ngalla waaye nañu gaaw ci régler problème réew am say journaliste ñu lay fenal am say tiktokeur ak say influenceur ñu nekk ci réseaux sociaux yi di mbel-mbeli waaye waaye neex na jàkka jaa ngi nii noddal ngay wër-wërloo c'est parce que mënuloo nodd boo mënul nodd da ngay bàyyi ñi mën nodd boobaa ñoom ñu nodd loolu nag moom mooy dëgg li nga xam ne moom moo am dem ba des mooy ne sénégalais yi nit ñi sonn nañu jaxle nañu te tey jii ku ne yaa ngi xool ak sa morom di am ak jaaxle jafe-jafe réew mi nit ñi bàyyiwuñu ci xel ñoom politiciens yi dara intéressé wu leen lu dul seen bopp ak la ñu am. kon fexe leen yéen ci seen bopp ni waa kuréel gi def ba régler tefes bàyyi leen di yóbbante galgal du ubub làmp xam leen ne yëf yi bu waree dox yéen a koy doxal seen bopp napp gi bu waree dox yen ñii nekk ci wàllu napp gi yéen a koy doxal seen bopp.